salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi siiwul seen site internet bi di 24 actu yi comme ni ñu ko baaxoo di ànd ak yéen saa su nekk ci naafilay weeru koor wi tey nag ñu dikkal leen ci guddik ñaar fukkeel gi ak ñaar ñaari rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon sabe ñetti yoon inna anzalnaahu ñetti yoon lixlaas di xul huwallaahu ahad ñetti yoon falaxi ñetti yoon naasi ñetti yoon ñu bamtuwaat ko ñaari rakan lay nekk rakan bu ci nekk fatiha benn yoon sabe benn yoon inna anzalnaahu benn yoon leexlaas gi xul huwallaahu ahad benn yoon fallaxi benn yoon naasi benn yoon su fekkee ñu dikkal leen ci waxtu yi nga xam ne mooy waxtu yi ñuy jàpp koor gi di 5 heures 18 maanaam juróom juróomi waxtu ci fajar bu taftalee fukki simili ak juróom-ñett bu dee waxtu dog yi 19 heures 27 maanaam juróom-ñaari waxtu si ngoon bu taftalee ñaar fukki simili ak juróom-ñaar ñu ngi leen di jox dig daje ba suba incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. riwal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi